dugal naafila du jour avant ñu seeti li nga xamante ne publicité avec la complicité de la régie c'est bon ñu dem seeti li nga xam ne mooy le du jour c'est parti. ashraf al-mursalin sayyidina wa mawlana muhammad ibn abdillah salawatullahi wa salaamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokki julliñ mbokki téléspectateur u Malikiya TV leeru Maodo yi ci biir réew mi ak yi ci biti réew ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara fa tabarakallahu di leen ndokkeel ci koor gi bu baax di ñaan yàlla ñu ngi ci fukki fan yu njëkk yi muy fukki fan yu yërmande li mu ëmb lépp yàlla na yàlla defal ñu ko li koor ëmb yëpp yàlla na yàlla defal ñu ko ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñu ñëw ak tey ci seen naafile du jour tey mooy cinquième nuit mooy suñu ñeenteelu fan waaye mooy juróomeelu guddi gi incha allahu taala tey naafila bi tamit bariwul fa tabarakallahu ñeenti rakaa la muy ñaari sëlmal quatre rakaa da ngay julli ñaar sëlmal julli ñaar sëlmal quatre rakaa yi nag benn bu ci nekk da nga ciy jàng fatihatul kitab bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ba saar wi jeex benn yoon jàng ci alam nashrah laka sadrak wa wadaana anka wisrak basaar wi jeex benn yoon jàng ci qul huwa allahu ahad ñetti yoon waaw kay rakaa bu nekk benn fatiha benn alam nashrah ñetti qul huwa allahu ahad mbokk yi loolu mooy naafila tey bi ñeenti rakaa rek lay doon fa tabarakallahu yal na yàlla may ñu ay cër yu sawar bañ mën ko def ci barke sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye mbokk yi ñu ne naafila boobu kenn képp ku ko def rek fa tabaarakallahu mel nga ni dem nga màkk ba ñëw ci aj dem nga màkk ci ba ñëw ci umra dinañ la bindal yoolu ku aj màkk ak yoolu ku umra dinañ la bindal yoolu junni nit yoo xamante ni bii ne fa tabaarakallahu def nañu loolu du ci yem sa bakkaar yëpp dana raxasu ba set wecc wecc wecc wecc wecc wecc fa tabaarakallahu duñ ci yem fa tabaarakallahu day mel na tamit fekk nga junni miskiin nga leele leen ku nekk nga jox ko lu mu dunde fa tabarakallahu kon mbokk yi xéewal yi nekk ci loolu yëpp kenn mënu ko wax dañuy jël yenn yi rek ca des ñu bàyyi ko waaye doy na ci sëkk sa baakaar yi dafay set wecc wecc beneen bi ci topp mooy doy na ci sëkk dinañ la bindal yoolu ku aj màkka ak ku umra fa tabarakallahu kon mbokk yi dinañ la bindal yoolu ku fekk junni miskiin muy mille personnes yoo xamante ne bii ne amuñu lu ñu ndogoo amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan nga jox leen ñu lekk naan solu yool ba nga cee am di ko am ci ñeenti rakkaa yi nga xamante ne bii ne def nga ko kon mbokk yi yal na yàlla sawaral suñuy cër ci jaamu yàlla ci darajay sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi yàlla bu nu xiif-xiifuk neen yàlla bu nu mar maruk neen yàlla bu nu sonn coonoog neen ci barke sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ba subaak jàmm ci beneen naafile du jour incha allah واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته merci beaucoup El Malik Dieng gis ngeen euh, nafile bés bi mu ngi non euh, quatre rakka la bu ñu nee quatre moy ñaari sëlmal nee naa leen naafila yi ay bonus la ay bonus yu bax la te il faut que ñukoy def c'est important euh, ñuy nafile merci beaucoup El Malik Dieng chaque jour ñu ngi and ak moom ci li nga xamante moy nafile naafila bi d'ailleurs